noonu nga sàggane te loolu lépp day alalu sëñ kenn moom ko sëñ Tuubaa ko moom murid daal di jàng alxuraan bu ko mënee di jàng xasaay bu ko mënee di wedd maaxuus bu ko mënee aw la mu mu téye ko daanukat bi yëpp nag boo xesee weesu tarbiya ak maanaam ni ñuy def nii ci koo xam ne dafa jàddu yoon di ko naqaral ak saagaaka ngir mu bañ a yëg boppam bu loolu lépp jàllee nga xam ne defoo ko rek ngir ngir ngir ngir tarbiya ci nit moom salaama ñu moom ngay tudd xasida wóoroo cee saaga wóoroo cee wax lu ñaaw sa yaram bii nga xam ne da yaramu yaramu la woo xam ne yaramu murit la dangaa war a xemamu bi sol set di xeeñ neex ku la gis bëgg la ku jaxasoo yow nga wan ko jikko ci xam ne di ngeen mën a tàggoo seen mën mosa naa da ngeen defar seen jikko yi ba leen gis da ngeen defar seen jëmm yi ba leen gis bëgg leen waaye nag ngeen defar seen jikko yi ba ku yéen du leen wat du leen ko bàyyi waaw waaye am na loo xam ngeen ko dugal ci waaye maanaam ak ay saagaat ay ay ay ay ay ay ay léegi julli jot nga wane ni Baay Faal nga te doo Baay Faal dégg nga ñëwee ci ak taq ak ak ak ak ak ñàkk sol lu normal ci lañ koy wane sol loo xam ne lee bokkut ak lee loolu lépp jotut ak yéen murit dara nit daal ngay correct doon nit yaay li ngay def nag dina ñaan loo xam ne ak bëgg àdduna la ngir ku la gis jàppale ku baax wala ku la ci jàpp ne da ngaa dëdd àdduna mm. kooku mën ci bëgg àdduna nga xam ne yow da nga jubluwoo ci lu gaa yi gaa yi mu rombeeg sama moom ci bi ni seen xel te dem ci ni damaa bañ àdduna yow ko yaa ngi bëgg àdduna ndax bëgg nga ko la jàpp ko waaye ndax waykat ba dañu say mbubb ak say yére ak saw yaram na ko setal tey sol lu set daane boo ko defee te ragal yàlla du la wàññi dara waaye boo jëlee mbubb yu xott ko nag ak yu salte di ci wane ab dëddu àdduna te te tuppoo yàlla it loolu du la jariñ dara kon nag na nan normal te te te bëgg sëñ bi tey jaamu yàlla yi yëf yi moom yàlla nga koy seeral waaye nit ñi moom seen i lépp bu ki day day doon ku régler yoo xam ne nag moom am na ku ci toll nag ci baj baj boobu ak mu ne fas wi ñuy tàggat muy bajal ko moom mën a su ko kii sama classe yi jaar nañ ci sama sama yëpp jaar waaw waaye nag bu jàllee nag nag nii day daal di <laughs> takki soxna nag doon ay nit nag wuti dépasse <laughs> di def yëf yi <laughs> man mii am na ay jamono ba kenn xamuñu duñ xam fi la ma da ngay téye rek ñu mër doo sangu doo solo waaye nag day weesu nag waaye xanaa doo ci ne rek nag <laughs> ah tey de suba nag boo demee ba ba kii nag. da ngay ñëwaat nag. ana da ngay. ah ànd doo doon nit jaay nag ah fonk sa liggéey ñu ne li gën a garaaw ci ci da da dañ dañ bëgg ko fonk fu ñu ñuy joxe nii di ko jox seen tubaab dañoo war a fexe mu lew. te dara jiitu ci. maanaam fa ngay liggéeyee fi ne nii boo fekkee ne sart yan la tegal nga war a xëy xëyoo waxtu te ñu te lay fay da nga war a fay yaa ngi lekk riba ndax yow euh, am di dalaa jël ñu ne dee ma xëy si huit heures deel wàcc waxtu sàngam léegi nga bàyyi ba onze heures nga ñëw te am di moom it onze heures jot ñu nga ñëw wàññiwut lam doon fay da la ko kon di la ko jox kon nag kooku jox na la loo xam ne liggéeyee te loolu loolu ñooy ci nga bëgg a jël muy lu jaaduwut ba noppi bëgg caa wut ngërëmal sëñ ci waaw moom ngi tàmbalee ci fa ngay xëyee respecté heure bu ñu nee tey nga waxtu wi nga ñëw nga jiitu waxtu woowa nga xam ne la jox sëñ bi moom fa nga koy fàggoo day doon lu lew bu ko defee bu waa bi moom moo doon lu mën a laal moo la a laal ndax sëñ bi waa ku ne xam ne du laal lu kii lu lu lu lu lewut mm-hmm. a ñëw si mu numbe indi ko uh, addiye joo xam uh, ko peese ñu dem ca soko ba uh, ngir ñu xayma ko ngir mën ko jox sëñ bi mm-hmm. waaye comme yónni ba mu demee yàlla dafa dogal bi ñu calculé boor koo fay tubaab bi ñu woo ko biñ ko wooyee mu wax soxnaam na ko fay laa tax soxna see ñëw rek mu yokk ci ab seru imaam bu doon 10 eh, kilos léegi 100 kilos la ko war a fay bu doon 20 kilos 200 kilos tubaab bi ñëw xool rek daal di calcul bu daal di fay fekk nag waa ji yokk na ci bu seru mm. biñ ñëwee benn xaalis bi sa mbind mi da ko ko leeral ni ko ah tey dama ci def ay pexe yu yaatu ndax jàpp nañ xaalis Tuubaa moom xool lekk du mujj fenn sëñ bi ne ko yan fexe mun ko damaa fexe bi ñu wooyee eh, tubaab bi dañ ko woo sama ginnaaw si si ginnaawam laa daan yokk ab seeram daal ci eh, soxna si ñoo fa mën a mën ko léegi génneel addiya ji li nga xam ne bokkut ak la nga ci yokk bu doon eh, pesé poids normal li mu doon mu génne poids bi génne lañ lañ ci yokk sëñ bi ne mi jël li mu war a yëpp sëñ Tuubaa la ca des mun mu woo ba mu ñëw mën ko nag yaay tànn ñaata bu la neexee nga fekk tubaab bi fu mu mën a nekk ci kaw suuf jox ko xaalisam boo neexee nga bàyyi bi bis benn fu mu mën a ne nga fekk ko te ñoom fa ñuy nekk te xuuru sawar yi ñi gën a tànk fa la ñuy nekk te lu mën xew moom ñu ko ko delloo imaa nga delloo koo fii wala nga delloo koo waaw léegi nag yaataan ñaari loolu soob rek man moom lii moom bi moom du ma dara léegi na yaay seet waaw bu ñu ne alalu tubaab ak alalu majuus ak alalu yahut yëpp loo moomul daal ba ko fa loo xamul du ko wax waaw bu ko defee nag am nañ tawfeex li nga xam ne moom ci lañu waroon a sonn di ko di ko wuti mooy eh, jumtukaay bu ñu mën yàlla ak bu ñu mën a dolli ko ci sunu loolu rek moo jorante ji laxas di ko wuti te loolu njëkk bu njëkk yombuloon danga daa dem ci sëriñ mu tëb la ba nga sonn mu jox la ab ab istixfaar nga di ci dem di ci dem bay waaj a màggat mu tàmbali laa wuyu nga xam ne boo xefee sax barke ba sa dooma ko jàpp barke nga dem ci ak kilifa topp ko ba sonn mu jox la ak salaatu jox la ci ndigal fekk na tabbi na la ba nga sonn wala nga ci mu jox la ab asmaul illahul husna ci ismilaay lax seen jàngal la ko xamal la ko fekk boo boobu sonn nga joxe nga ba sonn liggéey nga ba sonn nga soog caa war a mën a dox léegi nag yooyu yëpp yu ñu waroon di wuti nag sëñ bi dajale nañ ko ci xasaay nga xam ne jëru du ngay dugg xalwa jërul ngay woor ba sonn sëñ bi loo xam ne yow mën nga ko am ñu lay jaawale dong buñ tarbiya te ci biir ni nga koy amee ak lekk ba rek ak naan ba màndi waaw loolu boo sàmmoon doon sa bopp bay teel a jóg waxtu kon fu nu muy defee boo sàmmoon boo fexoon bay bay bay di yamale sag lekk di lekk lu yem kon nu muy demee ci boo fexoon bay ma bañ a naan lu nu muy deme ci yow boo fexoon bay bañ a jaxasoo jigéen lu ëpp lu lu yem rek kon nu muy demee ci yow kon am na foo xam ne ñun egguñ fa te ñun ñun ñi ngi ciy wax ci barke bi ñëpp sax ñu ngi ci am lu nekk. ci lii lañ ko amee maanaam lekk ba rek nelaw ba màndi naan ba màndi fuñ na fekk yaa ngi jaxasoo yaa ngi wax yaa ngi fen yaa ngi jëw yaa ngi def lépp te teewut sëñ bi sutura la dina defal li nga defal. léegi boo boo boo loolu moytu yooyu la maanaam bàyyi fen bàyyi jëw bàyyi maanaam euh, duglu si yooyu ñëpp. bàyyi lek ba rek bàyyi naan ba man bàyyi jaxasoo bari bàyyi dugg ci lu yoy yep nga bàyyi tay kon ni nga kon do benen beneen jiw amul beneen bunt bu ñu war a ci kanam ñun ñep ñun ñep ci li lañ nek te teewut ñu manam ci ah, ñu ci am ñu ci am dal kon nak am na xam ci am na benen yeneen buntu yo xamni bo boo sàggantu buñ ci buñ ci duggaatoon moom moom moom dina dina gëna xema kéemaane lool am dese nañ as góorgóorlu tuuti daal soo xam ne moom ah, waaye bu ñu suñu bokk nak ci ñi xamni nak ñi eh, dem ci bahari yeeg ñi wër di tox ak ñi bu ñu bopp ñooñu dañuy doon ay jàmbaar waaw hmm. ah seen bi gars yi koy bay rek na fekk yow doxugoo meetar dangaa war a wëroo nat sa bopp ci ñooñu hmm. dangaa war a nat sa ci saxaaba ya nat sa bopp ci maam Cheikh Anta hmm. nat sa bopp ci seen Massamba nat sa bopp ci seen Daaru Seen Njaay waaw foofu ki nga xam ne ñu doxoo waaw waaye boo fekkee ku toog jiwóogut nga bëgg ko euh, diir mbag yow mi dem dana nga jàmbaar la ndax loo jiwoo boo jiwee da na naa egg na waaw waaye nag wëroo nat sa bopp taxaw da ngay natt sa bopp suy dox boo bëggee yëg waaw mag ñi moom noonu lañ daa def waaw ñoom moom moom moom moom gàcce ngalaam waaw bu leen ñu fàtte nag ñuy ñaan suñu tubaab defal leen tawfeex ci liggéey bi tey